tey nag ñu amoon initiative mu ñëw ci liggéey bi nga xam ne si ne maire initié na ko muy sécurité kanaal yi nga xam ne moom moo nekk si marché Ocass bi mais nag bi ñu fi ñëwee ak programme bi ñu amoon que mooy bu ñu ñëwee dañuy fekk ne rek sécurité kanaal kese kese moo fi am mais bi ñu ñëwee kenn ku ne ma xam ne place yi nga xam ne mu ñëw ne ci kaw tali bi muy marchand ambulant yi bi ñu xëyee bi nga xam ne génne nañ seeni i table lañ fi génne ci mbalit moo mënuñu ko woon boole ak euh, sécurité kanaal yi moo tax ñu ne woon na njëkk dégager mbalit mi ba pare loolu moo waraloon bi ñu xëy rek ñu song mbalit mi pour dégager mbalit mi ba pare bu ñu dégager mbalit mi ba nga xam ne kii bi yaatu na ñu mën a sekkal ci canal yaakaar naa ne kenn ku nekk xam na ne bi ñu ci commencé avant 11h jël nañ mbalit mi yëpp def ko ay ay ay ay jàll. li des na mooy canal yaakaar naa boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey nañ ci liggéey bu am solo muy initiative boo xam ne gëm naa ne def nañ ko ni mais gëm naa buñ ci delloo dana gën a am taxawaay boo xam ne foog naa ne dina gën a mucc ayib. yaakaar naa nag euh, ñoom it desuñu ci ginnaaw bi ñëwit wax dëgg yàlla li leen war ñoom marchands ambulants def nañ ko muy ñëw nañ jàpp lañu ci liggéey bi ndax xam nañ ne ay doomi Tuubaa ñoom ñoo jóg ngir defar ñoom tamit ñu xam ne ñoom la ñuy defaral ñoom it ñu ñëw ànd ak ñun ci defar bi kon loolu tamit nekk na liggéey bu am solo boo xam ne si faaw ñu sant leen ci gërëm leen ku dikk ci marché bi da nga xam ne opération bu am solo lañ fi def dégager nañ génne nañu mbalit mi di xaar bi ñëw ñu tonni ko malgré euh, canal yi nga xam ne moo ñu yëkkatoon it ubbi nañ yu baree baree bare ba dégagé mbalit mi ci nekkoon yëpp génne ko ragal naa ne ndax Touba moom kenn ku nekk xam na bu bu ñu xasee nodd moom kenn ku nekk da ngay bàyyi li def lépp dem julli ji jumaa ji loolu moo tax ma jàpp ne du mën a àgg tay tay waaye fii ba guddi bu ñu jullee ba pare euh, dañu continuer ndax oto yaa ngi ñëw pour ñu mën a jël mbalit mi parce que jël mbalit mi nag moo des muy mbalit mi ci kaw tali bi bil bi la ñuy xaar pour tonni ko loolu nag li des ci ngoon gi ba guddi ba équipe bu guddi bi war a ñëw yaakaar naa ne pour jëlee fi lii moom gëm naa ne du du jafe daal. xam ne mooy tuuti jafe-jafe bi mooy euh, manque de moyen euh, pour oto yu ñu liggéeyee oto yoo xamante ne ni tey moo war a tijji canal yi ak li nga xamante ne ni moom moo ko war a jël lu mel ne radu peel yooyu amoon nañ ci jafe-jafe. mais malheureusement euh, ci ginnaaw bi tamit yónnee nañu 50 pelles aussi tamit ñun jënd nañ 40 pelles yoo xamante ne ni dugal nañ ko ci délégué bi tamit jënd na moom it ay pelles dugal ko ci ba tax na liggéey bi tey egsi na fi mu egsi am naa yaakaar ne bu fekkoon ne programme bi jëloon nañ ko démb kon yaakaar naa ne heure bi dana fekk ñu pare waaye euh, xëy na programme bi ni mu demee nii euh, li ñu waxoon ñu yaakaar ne ñoom ñoom ñooy am initiative bi ñoom tamit bi ñu ñëwee initiative bu bale lañ am mais suñu teeloon na xam ne ñoom amuñu initiative Euh, sekkati canal yi ñun loolu mënoon nañ ko jëloon suñu bopp démb kon liñ ciy wax rek mooy bu fekkee ne demee nar na demeti nii mu nekk bale non seulement nit ñi mën nañ bale mais wàllu canal yi ñun ku ci nekk sa place fi mu toll mën nga koo sécarte génne ko mais nañ ñu utal euh, euh, oto yoo xamante ni nii buñ ko sécarte lu mel ne pelle mécanique lu mel ne ay camion yoo xam ne buñ tonnee mën nañ ko ci def boobaa defe naa ne liggéey bi dana gën a yomb comme nii. xam nga bëgg nag wax dëgg yàlla boo xamante ni nawet baa ngi jub si rek. la set setal bu mel nii ñu def ko ci canal yeeg regaar yeeg yooyu ndax lu ko mooy ndox mi du jàll te day fat su ko dee ndox mi day day dugg ci biir euh, ci biir bagage yi euh, place yi jàmbur yi. léegi nag euh, su yàlla dogalee nag ñu ñu ñu def ko nii dañoo bëgg sax ci li wax daf ne daa bëgg trois mois yu nekk ñu def ko ndax bu ñu yeggee ci màggal wala nawet liggéey bi duutu duutu méttee nii kon mbir la moo xam ne lu ñu war a yaatal la ci marché bi ak ci dëkk bi yëpp nag wax dëgg yàlla. waaw mooy euh, dëgg la nit ñi dañoo teg ci kaw canal yi ci kaw regaar yi waaw ci kubéer yi léegi nag kubéer yi tamit wax dëgg yàlla daa toj waaye nag ñoom ci seen jëmi bopp nag wax dëgg yàlla ba dara desul lu may ñu laqar bi ko nag ñoom ñoo ko doon defaral seen bopp ñoo dindi canal yi ba mu set wecc tegaat seen i seen i seen i kii bu ko defee tonn bi nag waa mairie tamit ñoom it di góorgóorlu pour tonni ko waaye nag ñoom ñoo ko dindil seen bopp ba mu set gannaaw nag réglementé guñ ko nag noonu rek la mën a def nag wax ndax ndax kenn réglementé gul kaw tali bi euh, mbedd mi ba xam ñi war nañ fee toog war waruñu fee toog. li ñu doon gën a bëgg daal mooy <clears throat> bu yeggatee ci yu mel ni ñu fexe ba am ay jumtukaay yu mat sëkk am ñu ñu ànd ak ñun ci liggéey bi maire ñëw jàppale ñu ba liggéey bi gën a yëwee ndax marchands ambulants yi moom bi ñu yëgee ni sëñ bi moo moo bëgg ñu sekkati canal yi pour wàllu ndox mi nawet bi ak marché bi ak bu jafe-jafe yi Euh, nawet bi ak comme ni tali bi xat ak ndox mi lañ mobilisé wu ay 7 heures pile ñenn ñi 6 heures ba léegi ñu ngi fi canal yi dindi nañ suuf si dindi lépp ba lépp fi ni toll macha allah sedd na. waaw maire bi moom ñun dañ ni woon suba danañ teel a ñëw ñoom maire bi euh, danañ fi yebal 200 personnes waaye 200 ñun fii liñ fi gis mooy ay jigéen ñoo xam ne dañuy bale waaye jërëjëf président Marsane Mbelaye ndax ànd na ak mobilisé na nit ñi bañ génn sekkati kanaal yi comme ni comme ni ko sëñ bi bëggee ak ni ko maire bi bëggee. commune bi moom seen rôle mooy mbalit mi moom bale nañ waaye yenn jumtukaay yoo xam ne indi nañ ko fi pour lu mën a sécate canal yi moom man gisuma ko fi waaye wàllum mbalit mi moom indi nañ fay soxna bale nañ teel yi waaye mbalit maa ngi nii sama ginnaaw nii liñ bëgg daal mooy buñ ci yeggatee bu ñu yeggatee ci yu mel nii ñu dimbali ñu ba man ñoo ànd ak ñun ci liggéey bi nga xam ne du yàgg ndax mbooloo moom yaakaar naa ne lépp lu ñuy liggéey te ànd ceeg Pastef rek war naa mën a bañ a yàgg te yaakaar naa ni fi mu toll toll kenn ku ne tollatuñ fu naan la defaral defaral sa bopp ngay am looy di di dal wax di yàlla marchands ambulants ñoom ñëpp ñu ngi nii sekat nañ canal yi ba mu set wicc waaye jal yaa ngi nii tege bu ñu mënee dimbali daal nu mu gën a gaawee ñëw tonni mbalit mi nettoyé marché bi kenn ku ne delluwaat ci sa liggéey ndax ku ne xam na ni comme feebar bi fi jàlloon mbiru problème mu Covid beeg yooyu te ku na xam na ni jamono ji dafa xaw a naqari tabaski ji ki bi mi ngi ñëw ñu gën ñoo dimbali jàppale ñu ba mbalit mi ñu jëlee ko fi ak di su chaque jour ñuy fexe bay indi ay ñoo xam ne dañ mën di waaye marché bi chaque vendredi wala lu mel ne guddi gu ne ñi ngi koy def sax mais ñu gën ko yokk daal